mbooloo nag ñeenti xaaj rekk lay doon ñeenti xaaj moo am ci mbooloo kenn ku ne nag yaay xam ñeenti xaaj yi ci mbooloo mi man ci ban xaaj laa ci bokk waaye ñeenti xaaj rek moo am ci mbooloo benn bi mooy borom yitte yu kawe kawe ñu ne ci biir mbooloo mi ñoo xamante ne ni waxtu wu ci nekk ñooy diriwaale ñu ci des. boo doon wax naan ñooy bopp bi ñooy locomoteur bi nga xamante ni waxtu wu ci nekk ñooy ñoddi di dem ca kanam ñooy fent lépp lu baax di ko soññe ba pare ne ca ñooñu toujours ñooy ñëpp yitte ci mbooloo mi ñu xam mbooloo dëgg dëgg dëgg dëgg am na ñoo xamante ni bu ñu bëggoon a tas mbooloo mi am na ñoo xam da nga leen di tànn rek fexe bañ génn mooy borom yitte yu kawe. lool nga xam ne waxtu wu ci nekk ñu ngi xalaat ak nas luy tax mbooloo ma jëm kanam lu koy taaral luy tax gën a gën a xeme mbooloo ma luy tax nit ñi gën caa gis seen bopp loolu moo doon seen yitte loolu ab xaaj la ci waaye am na ci beneen xaaj boo xamante ni nii ñu bëgg lu baax la ñuy doon waaye nag agguñu ci dara ja ca kaw daraja yi ñi jiitu moom agguñu ci ñoom yàlla mayu leen sans su fent dara lu baax waaye nag lu baax loo fent boo leen ca woo ñu wuy sil ñooñu ab xaaj lañ ci biir mbooloo mi ñu bëgg lu baax loo xam ne foo nee nangam acco ñu la acco seen alal du ko fekkee seen waxtu du ko fekke seenu jot du ko fekke foo teg sa tànk boo tegee danga nga leen seen ñooñu ab xaaj lañ ci biir mbooloom am ci ñeneen ñoo xamante ne ni soo wootee ñu wuy si waaye ab diir bu néew lañ fiy def di ruusaanu di toog ba jeex bu faneen tëggee nga séenaat leen fa mooy ay wàlliyaan rek la ñuy doon loolu itam daa am ci biir mbooloo loo xamee ni loo tàmbali ñu daw ñëw waaye boo toogee ab diir tuuti deetoo leen gis tukkiwuñ demuñu fenn ñu ngi fii dara leen ñorut loolu ab xaaj la ci biir mbooloo am ci baneen boo xamante nag moo ci yées moo ci gën a bon mooy ci biir mbooloo mi la ñuy ne dara du seen yitte lu dul xool sikki nit ñi képp waa diw ni mu waxe ni mu waxe démb dégg nga ko moom daa mel ni diw lay waxal diw moom ni mu def démb dégg dégg gis nga ko waaye bu ko defaatee man nangam ak nangam ñooñu ab xaaj lañ ci biir mbooloo mi yoo xamante ne ni seen yitte yëpp mooy xool lu dul noonu xool lu ñaaw xool lu bon xool ay sikk ak di wan nit ñi seen bopp yow kat daa mel ni mbooloo mi dañ la tegut fenn te yow li ngay jariñ mbooloo mi yow kat ni nga mel ci mbooloo mi ak ni la mbooloo mi def xew diw wa mbooloo mi ñëpp ñëw na waaye ba diw xew le kenn dikkut mat yu bari yooyu da ci am ñoo xamante ne ni ci biir mbooloo mi loolu dong la ñuy xool ñooñu nag ñooñu yées ci biir mbooloo mi yooyu nag kenn ku ci nekk yaay xool ñeenti équipe yi ban laa ci bokk man waaye nit moom ku nite day fexe ba bokk ca kuréel gu jëkk ga ñoom diw dañ naan ñoom diw fi mu doon am na ñoo xam ne lu ànd bi bari bari bari diw moomee yóbbaale ñëpp dañ naan ñoom diw di jaar nañ fii ñoom diw jaar nañ fii su dikkut sax dañ naan gaa yi kenn dikkut te fekk ñoom diw rek ñoo manqué waaye ña ci des ñëpp ñëw nañ loolu nag yitte yitte ju kawe lay doon. te dafa bokk ci doxinu mbooloo mi yitte ak farlu ak jom yitte ju kawe ak farlu ak jom ndax sëñ Cheikh bi mu ne bërët yëkkati kenn xamu ko su amuloon yitte da koy teg ci suuf ndax dana li ma fi indi moom kenn xamu ko naa ko bàyyi waaye dafa jëfandikoo itteem ju kawe rek fas yéene moom li muy nekk ci kaw suuf yitteem jëpp mooy nit ñi xam ko ndax buñ ko xamee ñoo ciy demal seen bopp ndax njariñ képp képp képp la lu ànd ak lor te itte mooy mooy itte ju kawe mooy fekk loo xam ne ñëpp dañu yombut nga ni moom laa soxla te nun ngërëmal yàlla dong lan soxla sunu yitte. mooy ngërëmal yàlla lépp loo seen ñu jaar ca danoo jàpp ne dana may ngërëm waaye bu nu wóoroon ni ngërëm néew ca doonu ca seen waaye sunu yitte moom mooy ngërëmal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni bu ngeen di ñaan sunu borom àjjana ñaan leen ko firdaws ndax moo gën a kawe ci àjjana ya bu la mënta may firdaws it dana la may ba ca sës waaye nit dara mébét dama ni ngalawaay bu mu doon ak dëxën bo demone banan suma amon nangam ba tuddal lu kawe kawe nak waye buma amon nangam na man buma amon ak doxin sax ba wala sombi bi ba naan ci ba tëdd déedéet ginnaaw da ngay mebeute wut rek tawel fam mu baxé motax yitté baxna trop té ki ñu andalon wan nañu yitté ju kawe nuñ koy fàggoo sax bu ko daan jëndul matt ma gën lay jëndul ma gën waaye poñoxtit ma du ko jënd lépp lu muy def la ca gën a baax loolu lay def lu te mooy yitte ju ju kawe nga farlu ca nag farlu gi mooy lépp lu mu laaj ci ab coono ak ay moyens nga def ko ca li may def lépp lu mu laaj rek dama dama koy jaral bu dee finance dana ma ko jaral bu dee temps dana ma ko jaral bu dee xam-xam dana ma ko jaral bu dee coono itam mën naa ko cee def jom nag mooy lépp lu ca nekk cib coono nga muñ ko lu ca nekk cib coono rek nga muñ ko moo tax yitte dafay baax trop farlu ak jom mag ñi fi jaaroon nag ba tey àdduna di leen waxtaane seen barkeb liggéey des fi ñu di ko jariñoo fii rek lañ tegoon seen tànk amuñ yeneen jumtukaay yu ñu yoroon yi rek lañ yoroon bañ koy def nag ñoom yëgaluñ ko seen yaram waaye kañ ko doon defal te du wuute bi mu leen waree fay ñëpp yëg na ko moo tax lépp looy def def ko ci pas-pas pas-pas bu wér def ko ci ak bëgg ak yitté ju kawé soko ko rek sun borom dana la ko àggaleel fo xamanteni ni xalaato ko won sax ba ngay départ motax matna bayyi xel bu baax baax mag ñi fofu rek lañ ne seigne Cheikh nak da ca rawati doon naa wax ci njëlbeen ni dund gu jafe-jafe lu dund ndax mooy xam fi nit ñi jëgmal tem xam fu gën foofa bëgg leen fa yóbbu mu te sëñ ta wàññi ko sëñ ta jàpp boppam doonub jàmbur moo tax lépp lu ca doonoonub coono tegoo lépp lu ca doonoon aw metit tegoon na ko lépp lu ca doonoon ni jafe-jafe itam tegoon na ko waaye ban résultat la ko indil mooy àdduna jox na ko dëgg tey lépp lu waay bëgg a def danga dellu ci lim tàmbali woon mbaa doo dem lépp lu waay bëgg a def rek doonte niñ koy defee bokkut ak moom ni mu ko xalaate woon waaye faaw ñu jëli yëfam moom booleeg seen yëf door a mën a dem ku fi bàyyi yëfam doo dem loolu mat naa bàyyi xel bu baakha baax motax nu nu war di lewat sunuy la xassay gëna yokkat sunu yitté gëna farlo wat te bayyi saytani xel képp kuy yéeg te kula sanni sànniw xeer nga wacc fayu do dem ñi sanni xeer do ci am soxol ndax man damay yéeg ci njobaxtalu garab gala jëm kon ñi taw ci suuf di sanni dama ci am soxla sëñ Tuubaa daa wax ni képp ku bayiwul werante ak dàgg góor yàlla yi raw nañ la tëddeetoo leen dab ba mukk werante ak dàgg sëñtuwaa sëñ Tuubaa nee na ku ko bayiwul góor yàlla yi raw nañ la te deetoo leen dab na la wóor ni saa yoo sampee saw xel ni ci jumaa ja laa jëm am ku la tëye ni la doo dem yow jàppal ba pare ni xam ni moom demut yow la bëgg a gàllankoor fippul pour dem waaye boo ko nee fi taxaw boo ko nee fi taxaw rek moom mu am li mu bëgg da fippu pour dem te loolu yitte rek koy maye ak pas-pas bu wér ak xam fa nga jëm nu xam ni itam ni àdduna du këru fayukaay fii du barabu fayukaay barabu liggéeyukaay la xamaguñ ku jiitu fi mu doon coow li mën naa bari ndax fii du barabu fayukaay barabu rawante la ci lu baax wa fi dalika fal yatanafasil mutanafisuna kursu la kañ la ñuy teeri ëllëg yomal am buñ teeree ci kanamu suñu borom ku jéggi siraat te jéggee booy ba nga xam ni kooko jàmbaar nga waaye fii njàmbaar gu àdduna moom moom da fexe ba lii la yàlla digal nga tege ci fexe ba lii la seytaane yi proposé nga bañ caal geestu amuk way ju ni lu baax lii ma nekk kenn mënuma ma cee jële moom sëñ Cheikh rek loolu amul problème amoon na ko problème kenn sëñ Cheikh dong la na amal problème kepp te amuñoo problème fii ci àdduna ëllëg la ñuy mën loolu lay doon ci ginnaaw buñ gisee leneen lu bokkut ak lim nu waxoon kepp foofa rek la ñuy amee mooy nu gis leneen lu bokkut ak lim nu waxoon te bu boobaa buura nga foofu maanu boo xamante ni dana àtte te dana fay ab joxoñam rek lañ topp lu nañ ci ne rek. ba ëlëk nu gis lu wuuteeg lim nu waxoon bu boobaa buura nga fa bu maanu boo xam dana atte te dana fay te moom waxoon na ni àdduna sii ñu nekk bu ngeen ko doon wër ba mu daj du ngeen fi gis ku ma tane sëñ Matar Diop dana daan wax da ngeen mel ni fas wuñ takkale lonet fas wuñ takkale net lii yëngu ci wetam yoonam nekku ci fiñ ko jëmale rek la jëm mat naa xel bu baax a baax àdduna li fi yëngutu dafa bari te suufu Sénégal dafa nangu ba loo fi jëmbat mu sax su ma rek suba fim doni man na ma daal di wote ak wilaya ñen ñi dañ daan wax ne dëgg ñi ci dess ni waxu deug waye lu gatt gàtt dana am ñaar ñu ma àndal muy suuf sen nang lo fi jëmbat mu sax motax bo amé lu wér loo koy jappaté continuer rek matna baye xel bu baax a baax ki mom ñoko ta waxtane boo koy wax ñenn ci bokk yi dañ jàpp ne danga ko bëgg a jël teg ko ci seen kaw te cërub yàlla la yor bokk ci kiimaani Sëñ di borom yitte ju kawe di boromuk yëg loolu mat naa mat bàyyi xel bu baax a baax mag ñi ko dund xam ko boo leen jege danga xam ni bokkut ak ku yàlla bind. dama waxoon ci njëlbeen nga ni mu wuteek ñoom ci karkaasu jëmm nii noonu la wuteek ñoom ci lépp. loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaw. sëñ Matar Diop dafa am mosa nettali ne ma booba sëñ Cheikh dafa tukki yàgg ci tukki ba nee na ci biir gént gi ma gis ko laaj ko foone ne mun ma Marseille laa nekk. France nee na am xasida gu ma wut loo ma wut ko denc ko ne bi mu ñëwee ma ŋàbb xasida ga waax wuti ko mu fett suma ni ma téye ko ba ma laaj la ko kooku bu la joxoñee ni la fii la boo amee looy sikki sàkk yaay sikki sàkk waaye ñooñee mu taseeloon moom xam nañ kiñ taseeloon ko mu doon xam nañ lu mu doon ci yoon wi mat naa bàyyi xel bu baax a baax nag fi mu nag moom àdduna moom nii rek lay bindoo waxtu wu ci nekk kur kur ji bari na yëngutu bi bari na kenn ku ci tekk ni fëgg lenn lu ci nekk am waaye ku ne nangul naa la la waaye du tax nag li ma nekkoon ma bàyyi ko googu ñàkk fayda moom ak guma ci moom waaw li ma newoon moom moom ñàkk fayda googu ak góor nag ci bàyyi ko di seeti leneen leneen loo yor nag nangul naa la mat na bàyyi xel bu baax a baax daa am genn góor gu ñuy wax sëñ Cheikh Sëy eh, daa doon jébbalu bu jébbaloo fee yàgg mu dem jébbalu fële am bis mu ñëw ci seeblaat seeblaat ne ko Cheikh mu ne ko bàkk mu ne ko sa wattu wattu ji ngay def bokk waame waame wuy dotti da taaj sa bool bi benn place waaye fu xëba ba bi nga daw wuti fa ak sa bool da tooy te doo amum ndox fooy dij ci benn barab noo ngi jégalu bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullah